ma am na yenn kanam yoo xam ne man duñ ma guddal ca làmb. ah Laurent Gomis la tudd. wóor na sëriñ kii Laurent Gomis la tudd xam naa bu baax a baax. su ko neexee mu boole si Etienne doomu Ndiago ki mu daan jour la. Modou Mbaye jour la daan. koo xamante ne maa moom tolloo nañ at. mii bëri arène barki leeru alxuraan non nice ay business ba ma bëggee bëri arène damaa yokk sama at ah billaay wallaay taalaay ah, bu bu xale bi xale la kii lu xale kii mag la kii moo wër yàlla kii ba kii yaa ngi dégg waaw yow da nga bëgg a xeex déglu ma du ma xeexamu dama koy duma duma yu metti lënd fu maanaam lënd lu yàgg fu yàgg lay génne kii muur ma dama ko eenal eenal boo xamante ne la 27 février booy dinaa la dóor dóor yu metti sa kanam bu ndaw jadi jadi yow comme jadi jadi rek laa taxawal yaa ngi dégg ñu muy wax ñooñu la daan ay comédien. non dama leen duma dañ ma doon yab si signature mais ba ma leen jàppee fàllu ñooñu ak ay millions bëgguma hmm? du ma bëreeg ñooñu. waaye ñooñu ba ñoom boobu yow booy. nu mu demee la sax moo tax ma jël kii. mais maa ngi da yaa ngi toog naan man Bou Siteu de 2013 ba léegi. naa la wax leen si yoonu lamb man lamb lenn moo ma si dugal. 2016 laa dugg ci lamb ñun. yàlla déglante leen na kenn wax. man lamb lenn ma si dugal jàmbaar yi tekki ndax ñun suñuy situation daa métti. waaye jàmbaar yëpp a bëgg a tekki. fii yëpp ay teg da ngay déglu booy yow fii laay waxee ngay wax su ma waxee doo wax. comme bul gis média beeg yi. lu muy wax naan suñu génne yor ngay théâtre rek. yaa ngi dégg vraiment man maa la mën fukki junni yoon si làmb. loolu si dugal dama la mën barki leeru alxuraan fu Modou Lo taxee wala Balla Gaye dama fa war a taxaw par force. moo man booy duñu ma daan amuñu loo xamante ne daw na sama yaram. booy mënu ma yëngal wala fees na sama bët. kii magam dara dawul sama yaram mënu ma yëngal booy. kese yaa ngi dégg. booy gisu ko man naa la kii ba nga tëdd nelaw. da ngay làmb man jàppee naa la teg lu métti. su ma tekki woon si làmb booy mën a tekki ma bàyyi làmb ndax làmb méttiwul saful yéen làmb dawul sama yaram. soo bëggee rek sunu combat naka Fall Ndiaye si ñu def ko MMA ku kaawul ñu kii la. boo bëggee léegi léegi ñu. waaw mais waaw léegi bu laa xàcc ba tey moo ngi si air bi wàcceegul daanaka. Ah. la dóor def du waay. waaw léegi yéen ñaar kii laa la dóor yow boo xoolee kii moom boo ko xoolee entraînement xel sa xel dal na si. barki Serigne Touba kii nitu nitu nit nii la mel maanaam kii amul lenn loo xamante dinaa ko xam man Modou dama lay wax loo xamante nii Modou Mbaye Malick Ndiaye transfert li mu a waxoon ma wax la gis nga lu mu def ci làmb Malick wax ju bëri yee man man ma moromam yee damay laale suñ génnee du laal bu la neexee nga ne du ma soog doo soog morom mais maanaam laa la Laurent yow kii maa tax maa mu naan ay maam. yaa ngi dégg. dama juum. yee. waaw maa teel a jël tax xamoo ma. da ah. nga juum juum. waaw da nga ma bàyyi yi mu am. du ma ko jël dofuma. na ma cooli di rey du ma ko jël man làmb moo ma a yow xam nga kan nga war a sant buuse war a sant buuse mii moo jël la. yee kii suñ la tamit xam nga. waaw yàlla na ko yàlla defaral jàmm. amiin ñun ñun duñ ay noon ñun ñëpp a far. yaa léegi li ma leen bëgg wax yéen ñaar seen combat mooy déjà yéen ñaar da ngeen war a ñëwaat ci 2STV ci yoon dans cette semaine. ñëw fekk si Bijou Ngoné. Mhm. normalement da ngeen ñëwaat ak Boucher. Mhm. ndax moom xaritu Bijou Ngoné la. Modou Mbaye jeex. waaw xaaral ma def <laughs> moo def li may def yéen ma liggéey. semaine bi ñoom ñaar dinañ fi teewaat ci 2STV. ci émission Bijou Ngoné confrontation benn spécial bu Siteu. Euh, euh, euh, Laurent Ndiago parce que combat la bu nit ñi bëgg may déglu leen wooteel. waa di woote rek ci woo ku si mel ni Keba Kante DG bu mag bi maa koy woo ci combat bi ma dama lay suivre booy dafay xam nga kon Pape Diouf maa ngi koy woo ci combat bi ba di ci woo bébé Baas waaw di ci woo Boussa Këcc Boussa moom su ma neexee sax na du wax ko woo ci combat bi yaa ngeen di Boussa problème de loolu hmm? non ñoom ñaar non kii suma mag la waaw après après waaw moom su ma neexee hmm. waa ku si mel ni Alaaji Naar maa koy woo ci combat bi bu baax a baax xam nga di ci woo ku si mel ne Ahmed Aïdara maa ngi koy woo. monsieur le maire. waaw Ahmed Aïdara koo xam ne mooy sunu maire fee secteur xam nga moo la tax ñun yàqamti woon nañ mu doon sunu maire. Ah. waaw moo loolu Ahmed Aïdara maa ngi koy woo bu baax di ko félicité nag di si woo Béy Déba maire Gunaas bi maa ngi si woo di ci woo tamit président fan club njaboot gi. Ah. maa ngi koy woo ci combat bi ku si mel ni Tafa Yaa xam di woo waa Géejawaay ba di ci woo tamit Abdou Tall bu xarañ koo xam te ne Modou yi maanaam amul mbër booy dégg ko mu naan Abdou Abdou Tall dafa baax baax boo xam borom baax la ñëpp ko xam ay jàppale da naan bëgguma kenn wax tudduma waa léegi doy na doy na xaar noonu la demee wooteel di di woo ay laay soirées man buy kat feeraay laay woo ñoo xam ne yi buuyu ba waaw ba mu des suba la ñu jox ma jënd si ay saraxi ndaw ye mooy moomin yu ndaw yu xamul dara woo leen woo leen yee di woo tamit xam nga ay laay soirées mm-hmm. ay formos mendi mm-hmm. yee di woo ñoom inoo ñoom boo ñoom njoor mi ma àndal mm-hmm. ñoom mbay siise mm-hmm. yee ñoom njool xam nga di woo waaw képp ku may bëggee ak ku ma bëggewul sax maa ngi lay woo yee di woo nante yëpp gaan yee di jéggalu ñëpp bilaay walaay kontaan naa ci yow kontaan naa ci yow waa diaspora bi tamit eh, kii woote na kii woote na waa diaspora bi ñoom tóoni ñoom gars yëpp maa ngi leen woo gars bu Laurent pare waale na de voilà kii parewul ah. <laughs> mbokk yi combat la boo xamante ne nii combat bu am solo la parce que ñu ngi wax léegi. ñu ngi naa leen Bijou Ngoné dina leen fi dalal mais Bijou Ngoné moom dafay koo xamante ne nii combat bu mag bi moom lañ ko tuddee te combat bu mag bi ki ñu ko tuddee mbokk yi moom it xale la boo xamante ne nii. ci bind la tàmbalee bokk na ci journaliste yi nga xamante ni Sénégal ci wàllu bind kenn gënu ko ci xareñ parce que mi ngi tàmbalee la tribune ma xam fa laa ñu nekkandoo woon ma nekk seen TV mu nekk tribune di fa nekk Sen TV ñëw fa di liggéey ci confrontation